def dimanche bi déggoon ngeen ko mooy dinañu wone ni sénégalais yi seen ax ak seen yelleef bu ñu bëggoon nangu seen loxo dinañ ko firndeel dimanche dem ci seen centre de vote yi ak benn bulletin bu rouge pour wone ni lii Macky Sall def mooy dax élection yi ci ay anam yi nga xam ne kenn xamu ko ñun rafetlu wuñ ko ñun sénégalais yi suñu ax ak suñu yelleef dinañ ko sàmmal suñu bopp di jëm ci dialogue bi muy woote nag moom it bu soobee yàlla ñun dinañ woote suñu dialogue ak suñu ay citoyens sénégalais ndax ñun duñu dem ci dialogue bu nga xam ne lenn rek mooy objectif bi mooy wone ni sénégalais yi maanaam politiciens yi jubóowuñu ci ni ñuy déroulé ndax boo boolee ñi bokkul euh, objectif naturellement ay désaccord ngay am